di musli ci moom sunu ayu bopp wi jóge ci nun ak jëf yi nga xam ne noo ngi koy toggoo te neexul yàlla subhaanahu wa taala noo ngi jéggalu loolu di wax ne képp ku yàlla xéewale ba teg la ci siraatal mustaqim yoway ku jub ki waaye ku yàlla bàyyi ci coobareem yoway ku jàdd ku réer koo xam ne kenn mënu laa jubbanti di seede ne yàlla rek mooy buur bi yeyoo ñu jaamu ko jaamu ko njariñ nekk ca bañ kaa jaamu lor nekk ca kooku moo di yàlla subhaanahu wa taala yàlla nee na inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'uula na ngeen xam ne seeni nopp yi ngeen di déggee ak seen bët yi ngeen di gisee ak seen xel mi ngeen di xalaate lépp kullu ulaika kaana anhu masula xel lu leen cër bu ci nekk rek la muy def moo ko responsable bu ëllëgee lu mu bëgg a foofu mooy déglu loo war déglu wala xool loo war ta xool wala wax loo war ta wax kon loolu mooy li ñu bëgg a waxtaane tey mu jëm ci jokk ak bokk ni mu amee solo ci lislaam jokk ak bokk ni mu amee solo ci l'islam waaye dog ak bokk itam ni mu rëye ak ni mu bare bàkkaar ci l'islam mbokki jullit yi charia al islaamiya dañuy son soññ bu baax a baax ci ñu làmboo jikkoy rafet jikkoy rafet mooy makaarimul axlaaq te moom la def itam muy sabab suy tax nit suy tax nit ki am ab yool ak tuyaaba ëllëg yowmal xiyaam جلننتي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما من يا رسول الله يو ينتي بي أخبرني بشيء إذا عملت بفك جفناكو جفنا به تموم دخلت مدادي تبي الجنة الجنة أبو هريرة فخني فنيو تيرنتي عليه الصلاة والسلام koo xam ne dafa ñëw ne ko yonent bi wax ma jëf joo xam ne bu ma ko defee rek dugg àjjana yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko at'imi taama del joxe xéewal ak berndeel wa afshi salaama te del nuyoo jullit boo gis wa silil arxaama te del jokk jokk bokk wa qum te nga jóg bil ci guddi wan naasu te nit ñi niyaabun woy nelaw lañu so ko defee tadxul kon nga tabbi kon nga dugg al aljanna bi salaamin andak salamin jàmm yonent bi alayhi salatu wassalam ki ñew fi mom ne ko wax ma lumay duggal dugal janna mu ne koy ay yefa ngini yo xamne boko defé da nga dugg janna bi ci ñek mu ne ko atimi taam mana del berndel bo amé gan wala nga bëgg def lu baax wala nga bëgg sak sarax wala nga bëgg a way ñak atimi ta'am del joxe aw ñam del togg di joxe wala ngay jënd aw ñam di joxe wa afshi salaama julit boo gis ëmbal ko aw yiw ba foo ko romb nuyu ko foo ko fekk nuyu ko del jokk sa bokk kenn ku ne am nga ay bokk ay jege ñaale ñi nga bokkal deret ñi nga bokkal wàllu ci gorom lente wàllu goro loolu it ak mbokk la ñi nga dëkkandool ñi nga bokkal diine ji ngay jokk sa bokk ci ñoom te bañ a dogoo ak sa mbokk léeg-léeg nga gis koo xam ne am na ci ay bokkam ñu mu jubóolut ba dogoog ñoom te teewut jàmbur yépp fexe na ba jokkook ñoom loolu la ñuy tudde dog ak bokk waaye jokk leen itam moo di jokk ak bokk lu am solo la alxuraan dénkaane na ko moo tax yonent bi teg ce ne ko wa qum bil layli wan naasu niyaam soo tëddee ba guddi te nelawoo na nga jóg jàpp julli ay rakka moo xam ñaari rakka la wala lu ko wala loo mën ci naafila guddi nga di ko def soko defé day tadkhulil jannata salam da nga al janna ba yonent bi tité lol wax yi tambalé wacc ci mom mu amuk jaxlé ci mbir mi lu mu don Khadija dalal ko ne ko yow ku tedd ki andal ak sa sago te bek ci lila yalla di jox yalla du la ndax innaka la tasilu rahim kuy jokk ak bok nga nga gis ne kon jokk bokk gi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee moom la njëkk a indi foofu ne ko it kenn xamale ci caaxaan te ku dëggu waxtaan nga waaye itam ku am yitte woon nit ñi la ba koo gisul di ko laajte gan gu ñëw fi yow nga teral ko képp ku am aajo bu ñëwee ci yow nga teral ko kon yàlla du la gàcceel mukk moo tax يننت عليه الصلاة والسلام بآي بيواتي وأنذر عشيرتك الأقربين يننت عليه الصلاة والسلام دفا دادي يك جبل صفا دي واتي نت لن لين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا نت نخاتل لين سين بوب ديمبل لين سين بوب man day mënaluma leen dara yàlla moo leen mënal dara yéen giruk banu abdul manaaf gépp laa ugni ankum min allahi shay'an ba ba muy wax ne fatimatu bintu rasulillah ne ko yaa fatimatu bintu rasulillah salni min maali laaj ma ci sama alal maa chiti lu la soob waaye laa ugni anka min allahi shay'an yàlla mooy buurum ñëpp moom la ñu war a jaamu te it képp koo xam ne jaamoo ko bu ëllëgee bu lay mbugal keneen mënu ca dara loolu kon mooy kenn ku nekk nga jaar fa nga war a jaar ci wéye ndigalul yàlla subhaanahu wa taala ñoo xam ne jokk ak bokk dafa bokk ci waral e, tuyaaba ju baree bari waaye dog ak bokk yitam nag dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi jële nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne Buxaari yu moo ko nettali mu ne laa yadxulul jannata xaatiun wala laa yadxulul jannata xaatiun rahim kuy dogu bokk du dugg aljanna te loolu xadis bu wér la kuy dogu bokk du dugg aljanna kon dogu bokk ndegete bàkkaar bu rëy la waaye jokk bokk itam tuyaaba ju rëy la loolu mooy di wax ne فهل عصيتم إن توليتم an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ba tey mi ngi tëkku ñi nga xam ne ñoo bew ne ci kaw suuf di yàq ka jaxase ka tuur deret waaye di dog ak bokk ulaika alladina laanahum allahu fa asammahum wa ama absaarahum ñooñu day yàlla rëbb na leen te ku yàlla rëbb dana la jàpp yàlla kaste na seen xol yeeg seen bët yi kon dogu bokk lu bàkkaar bu rëy la ci kenn ku nekk dogu bokk bokkul ci ngëm yàlla jokko ak bokk dafa bokk ci li nga xam ne moo di gëm yàlla moo tax bokk na ci jokk ak bokk ci nit ki lépp lu muy def ci loo xam ne war na caa mën a dimbale mbokkam mu dimbale ca mbokkam loolu moo di jokk ak bokk bokk na ci jokk ak bokk i'anatuhum inda alxaajati nit ki am jafe-jafe ci say bokk ci sa biiri bokk nit ki soxla ndimbal nga dimbale ko loolu jokk bokk la kon boo seetloo ci nun ci sunu jamono nga xam ne waxtu wu ne nit woo la téléphone wala nga woo nit mu ne la man day damaa soxla nangam wala damaa soxla sàngam loola bu fekkee lumu mu loru la tey farata nga dimbale ko ca lu moo xam néew na wala mu bari loola bokk na ci jokk ak bokk mooy iaanatuhum inda alxaajati naasila dokk na ci itam jokk ak bokk boole aw nit ci bisi iid yi nga dem ci ñoom nuyoog ñoom saafante ak ñoom loolu bokk na ci jokk ak bokk bokk na ci ni ñuy jokke ak bokk maanaam bu nit faatulee ci say mbokk nga taxaw ca taxawaay bu wér boo xam ne bu dee ñu aaju dimbal la nga dimbale leen bu dee dem fa itam defal leen jàll leen nga dem fa defal leen jàll leen loolu mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaale nee na min muminin yuazzi axaahu bi musibatin illa kasaahu llahu subhaanahu min xulalil karamati yowma alqiyaama gis nga jokk bokk ni mu am sela yonent bi nee na amul benn julit bu gëm yàlla boo xam ne mbokkum jullitam dana am ku mu le manam mbokam mu génn aduna nga dem fa jale ko defal ko lumay yàlla dana la wodde ëllëg mbalanum teranga ëllëg yowmal qiyam jale sa mbokk defal ko ñaanal kifatu yermandik njegal ab julit du ko def lumay yàlla dana ko wodde mbalanum teranga ëllëg yowmal qiyam ma min muminin يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة يننتبه عليه الصلاة والسلام موقع نكالي كون تي أب جلد تي أموك يرما ديم مي غطان لو تي نكا جوكو أكبوك يننتبه عليه الصلاة والسلام وحارنا تي بنين حديثنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه képp ku gëm yàlla gëm ni bis penc dana ñëw del jokk sa bokk del jokk bokk muy dimbali ko di ko woo téléphone bu amee soxla nga nemmiku ko léeg-léeg nga woo ko nuyu ko laaj ko mun nu mu def njabootam ci famille bi yépp ñi nga xam ne ay bokk ngeen loolu bokk na ci jokk bokk bu ñu amee mbégte nga bokk ñoom bu ñu amee safaan ba nga bokk ko ak ñoom léeg-léeg nag gis koo xam ne day dagg ak mbokk ta lam koy daggee sax du ko jar xañ na daa mag ca famille ba am koo xam ne déggalu ko nam ko war a déggale wala mu doon ko dimbale te kooka mel neneen noo xam ne neexut a dimbale mu daal di koy dagg wàcc loolu it taxut a jokk ak bokk ala kulli xaal mën ngaa jokk sa bopp bokk te doo yen loru yi waaye dagg wàcc moom doonul li nga xam ne mooy li gën tax yonent bi ne ku képp ku gëm bis penc gis nga ngëm fam ni mu rëy ci nit mu aj ko ci koo xam ne da ngay jokk ak bokk man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir falyasil rahimahu mu dellu waxaat feneen moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne man sarrahu an yamudda allahu fi cumrihi wa yuwassia alayhi risqahu wa yadfaa anhu miitata suu falyasil rahima yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne bu yàlla yokkoon saw fan nga bég ca lool bu yàlla yaatalee sa wërsëg nga bég ca lool bu la yàlla fangalee deegu ñaaw nga bég ca lool fal yasil rahima kon na jokko ak bokkam képp koo xam ne bu yàlla yokkee saw fan guddal ko kon ndekete jokko ak bokk day taxa am fan wu gudd képp koo xam ne bu yàlla yaatalee sa wërsëg kon ndekete jokk ak bokk day tax am wërsëg bu yaatu képp koo xam ne bu yàlla fangal la deegu ñaaw kon ndekete jokk ak bokk day tax a mucc ci deegu ñaaw fal yasil rahimahu kon na jokk ak bokkam na jokk ak bokkam gis nga ki nga xam ne day faral di dimbali ak njabootam maanaa léeg-léeg ñuy jàmbat dépense yu bari yi fere yu bari yi wa rew ma dañ lay wo dañ lay di wax li dañ lay laaj le deug la na am ndax yow ya xam li ngay jankontel waye da ngay japp ne lepp lo ci def rek payub yalla ngay taxaw di xaar ci lola bo deme ba to joxe lu bari ngay joxe lu tuti nak rek ta bañ ko dag lolu moy fi nga xamne fi la ko bi alayhi salatu wassalam aj kon mbokk yi laha asrarun wa anwarun wa atharun wa barakatun topp yàlla ay mbóot dafa nekk ci biir yu bokkut ak rek julleeg salmal ak i leer ak jeexit ak barke yu baree bari wasilatu rahimi jokk ak bokk sababun li jalbi risqi wa dafci lbalaa'i wal barakati fi l umri ak bok sabab la suy tax nit ki yàlla di ko wërsëgal fu mu toll rek jokk ak bokk day tax yàlla jëñal la ay bala yu naroon yu la naroon a dal day yokk barke itam nag day yokk barke bi ab dund bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi أن تقصير الله يتغير بعمل الطاعة من الطاعات أي ليس معنى الحديث أن عمر الإنسان الذي شاءه الله له يزداد ويتغير بعمل طاعة bu yàlla ne képp ku bëgg yàlla yokkal la soo fan deel jokk sa bokk deel jokk sa bokk tekkiwut ne rek da nga ne ah man kat xanaa kon li yàlla waxoon ne kenn ku ne bind nañ ab digam ah yàlla dana yokk aw fan te du la mu am waaye dana barkeel ak dund ba nit ki bu fi hitam itam waxtu ne ñu di ko fàttaliku ngir dundam gu barkeel gi nga xam ne moom la defoon ci kaw suuf loolu yokk gi nga xam ne yàlla dana ci yokk awfan fan mbokk yi kon ñu xam ne jokk ak bokk lu am solo la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne laysa alwaasilu bil mukaafi walakin alwaasila man wasala rahimahu ida qataat nit ku baax mooy doone rek diwo seet seet bàyyi ma mayit ma bàyyi ko yonent bi ne nag buñ nee jokk bokk kat tekki wut ne da ngay jokk ba mu yàgg ko bàyyi la nga ne ah moo ma bàyyi kat naa ko bàyyi ma itam wala moo ma bàyyi ma bako déedéet laysa alwaasilu bil mukaafi walakin alwaasila man wasala rahimahu ida qataan kala dogu bokk kala dog wacc nga wër ko ba gis ko wala nga woo ko ba jot ko jokko jokk bokk ga nga xam ne moom la dagoon ñaari nit bu ñu toogee ba yàgg kenn kan bay seet seet bàyyi moo xam da koo wax wala waxu wala mu ne diw dootu man di moom wala dootuma ko tudd yow boo toogee toog déggoo ko wala la ngeen daan seq seqatuloo ko ne ko ah, man kat maa ngi lay jégglu maa ngi lay balu ak su fekkee amel naa la ak bu ma sañoon sun diggante du demee nii ngeen di dem lante di waxalante ci téléphone ba leneen koku la yonent bi sallallahu alaihi wasallam di tag ci ki nga xamne moy jokk ak bokk léeg-léeg ñaar dogo nak ku ne bayyi mu melni dañu dañoo ba nit ku bax ku am xel rek mo mën xamne ñaar wuñ ni mu dox ci ba di ba yalla dogal ñu melat ñu melor lolu jikko yu rafet la kon jokk bokk jokk waa ji moo di nga jokk ko ca gën ca la nga xam ne moom nga koy jokki jokk bokk li muy tegtale mooy xusnul xuluq muy rafet jikko ji nga xam ne yuhibbuhu llahu wa rasuluhu yàlla bëgg na ko muy jikko yu rafet akub yonenteem bokk na ci jikko yi yu rafet yi ak teggin yi yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi moo di nit ñi ñu fexe ba taqoo ak téereb yàlla bi di jéem a xam li muy digle ñu di ko def di jéem a xam li muy ñu di ko bàyyi yàlla nee na wala tastawi alxasanatu wala sayiatu idfa billati hiya ahsan lu baax ak lu bon duñu yem ba mukk nit ki faw yow fexeel ba tane ko boo ko xamee ci jikko yi ñaaw tane ko ca jikko yi ñaaw yi boo ko xamee ci dogu bokk boo ko xamee ci làmmiñ wu ñaaw ak lépp loo ko xamal rek yow bul ko tane ca loola na nga ko tane ca la xam ne mooy la baax loolu mooy jikkoy ab sang nit ki bu melee neneen bul fayantoog moom wala tastawi alxasanatu wala sayyi'atu lu baax ak lu bon du xam nga léeg-léeg nga dégg ko wax ñaaw wax lu ñaaw moom ñëpp ko man xanaa daa am ñu koy jomb ak ñu ko jombut waaye wax loo xam ne ku ko dégg dar gi miñ moom ko man daa am ñooñ nag jomb nañ koo génne ci seen gémmiñ jomb nañ ko wax seen jikko mayu leen ñu wax ko seenub yarit mayu leen ñu wax ko wala tastawi alxasanatu wala sayyiatu lu baax ak lu bon du yem mukk buñ la joxee lu bon nag idfa billati hiya ahsan yow joxeel lu baax idfa billati hiya ahsan yow joxeel lu baax fa ida alladi baynaka wa baynahu عداوة كأنه ولي حميم boo saxee ci lu baax ay la yéwén rek mooy mujj jib lu àdduna yàgg-yàgg ay la yéwén wala kooka dem ba mu yàgg am sa kersa ci wóor na ko ne yow mii lim doon jëflanteeg yow moom mi moo nekkut ci yoon waaye yow mii yaay sang bi nag yaa làmboo jikko yu baax yi fa ida alladi baynaka wa a adawatun ka annahu waliyun xamim nit ki dana la jàppal dara wax la lu nekk wala mu def la lu nekk yàq sa der fu nekk waaye boo saxee ci mbaax ba wëlbatiku wan ko ne ko jàppaluma la dara di ko defal lu baax dana mujj la mu jàppoon dana ko bay idfa billati hiya ahsan lu mel ne mer nga faje ko muñ lu mel ne réer nga fexe nga euh, euh, faje ko ak lewet lu mel ne ku ñaawal jëme ci yow jëf ju ñaaw nga faje ko bil afwi ihsan ci jéggale ak rafetal loolu mooy jikkoy ab sang loolu mooy jikkoy nit ku baax loolu mooy tax nit ki mucc ci ay bàkkaar àdduna ni rek la haadihi dunya hiya daaru mamarrin wa laysa daara maqarrin adduna kërug rombukaay la kërug jaar jàll rek la du kërug saxuwaay xoolal ak yi ñu weesu rek li nga xam ne bokkoon nañ ko nekk fii aku nit ñu doon yëngu ci yëngu yi di def ci def yi di wax ci wax yi dem nañ bu yàgg kenn xamatul ci ñoom dara te waxtu wu ne gis nañ ne ñi nga cay topp di ca topp di dem hadihi dunya hiya masruatul axira adduna ji ngay gis mooy tooli alaxira wal qabru sunduqul amal bàmmeel mooy ko farfooru jëf lépp lu waay di dajale foofa nga ko yóbbu kon fa hani an liman barra wattaqa wa xutima lahu bil amali salih ki nga xam ne dégg na te topp te ragal yàlla te fexe ba mottalee ak dundam ci jëf yu rafet kooku mooy ki jarañee